ngir ngeen di jot suñuy vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew si réew mi ak bitim réew. bi mën a may. gën noo gàtt noo Tawfekh sëriñ bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt jëm ci réew mi ñu bokk ak euh, diine ci ñu bokk ak euh, valeur yi ñu bokk tey nag ñu bëggoon lant biir ak eh, njiitu réew mi li tax ñu koy def defit nag mooy dañoo jàpp ni loolu ñuy wax conseiller yaakaar naa ne senegaal a ngi ci yàq alal ju bare bare bare bare bare ndax foo dugg ci administration bi rek da nga fekk conseiller boo xam ne bii weer dee mu dem fayeeku ci dong mooy njëriñam rawatina nag ñi nga xam ni ñoo ko jege ndax lu tax ma wax ko nit bu yàlla dogaloon tey jii mu am ay conseil conseiller wàll wañ leen di laaj conseil yi ñu xam ko nga ne conseil en communication wala conseil euh, en affaires religieuse wala beneen xeetu conseiller muy koo xam ne kii ku ca xarala la waaye bu fekkee ne xarala na ci nga koy déglu su boobaa yaakaar naa ne dana bari erreur yoo xam ne yi doo ca tàbbi te nag ku xool jëf yi nga xam ni moom mi ngi koy jëf ci anam yu bare nag danga naan kii moom amul conseiller ci wàll woowu nga xam ni fa lay defe jëf joojoo li ñu koy laaye biir nag mooy mu delloo sim xelam ndax moom de yaakaar naa ne ku yeewu la ku muus la ku xam àddina la ndax ay jaar-jaaram ku déglu vidéo yi nga xam ni moom lañu ko compileel yaakaar nga ni moom rekk moo xam senegaal ndax moom laata muy jot ci yëf yi fa ñu ko jaarale la mu ci dund waroon naa xam ni moos foofu la tollu tey jii moom dégg naa ko fu muy waxee naan Amath Suzanne Camara jàpp nañ ko nangam nangam réew mi kenn dootu fi nangooti nangam nangam le pouvoir du clic va dominer le pouvoir du fric et du flic yooyu yëpp génnee na ko ci gémmiñam vidéo yaa ngi nii ñuy circuler fan yi waaw ku am moomu xel nag am boobu xam-xam am boobu expérience am na yenn erreur yoo xam ni waruloo nangu mu lay dal ci réew te nag suñu borom tabaraka wa dafa am moom processus yàlla innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla bu nammee mbir da ko naan amal mu am waaye nag ci mbir mu nekk nag milieu ba ak nit ña ko seq ak jamono ja loola suñu borom da koy wutal processus boo xam ni bii mooy jaar-jaar ba boo xam ni mënul ñàkk c'est que waxi nguur lañuy wax dañ koy misaale ba tey kon ay buur na dafa nekkoon ci xolu waa Égypte nekkin wu sori lool lool lool xeeti firawna yee fa jaar yépp nga xam ni nit ñi dañoo àgg ba ci yóbbu yóbbu la ci daraja yi yàlla daanaka nga xam ni dañu ne woon na bi moom mooy jëmm yàlla ji nekk nit di la sujootal di la raamal di la liggéeyal koo ci rey kenn amul lum cay seet ko ku la neex bàyyi mu dund yooyu yépp na àggoon na fa waaye nag ba muy dem ak caay-caay suñu borom di ko bàyyi mu ne ci processus daanaka processus bu mujj ba mooy jàpp njabootu ba bani Israayila di rey liir yu góor ya foofa la teerale ba nga xamee ne mi ngi dàq Muusa alayhi salaam ba mu agsi ci booru géej ga ana lu ko waroon waññeeku waaye dégg naa ñu ne baadoola du jub gàcce te àggul mu daal ni nag kon danaa ko topp ci biir ndox mi te xamul ne ndeke yoo booba suñu borom lalal na ko fa ndëgg sërëx am na jëf yoo xam ne yi boo gisee nit di ko jëf danga naan a ah, kon nag processus bi tàmbali na loolu it nag moo toppoon buur yeneen yépp Namrod kazalika ba ci bokka sax nga xam ni jóge na fi ñu fal ko buur mu dem ne damay nekk général ba yàgg mu ne damay nekk maréchal ba yàgg mu jóge ca ne dañ may def empereur te yow titre yooyu yëpp ay titre titre titre yokk sa bopp rek la woon kon pour loolu mën a nekk suñu borom mi nga xam ni moom bu lay fal day jël loolu def ko ci xolu nit ñi ñu nangul la boo demee ba fe jot da koy rocc ci xolu nit ñi nu mu koy roccee mooy faaw ngay jëf ay jëf yoo xam ne yi ñooy tax nit ñi weddi la Abdoulaye Wade bi muy falu fii at yu jëkk ya wala nga ne weer yu jëkk ya ku ko tudd sénégalais yi ne bàyyi leen paa bi mu liggéey bàyyi leen paa bi mu liggéey ndax yaakaar ju rëy ji nga xam ni moom la nit ñi defoon ci moom lay Wade di def nag lu ko neex jàpp alal ji di saax saaxee di fal façon nit yoo xam ni kenn xamul yu ñu doon transhumance ba nga xam ne moom moo ko néewaloon doole ci opposition Ablaye Wade dikk saxal ko ak yeneeni acte nag yoo xam ni amu ci benn boo xam ne bii bu ñu bu nit mën a gërëm soo àndeek sam xel ba mu demee keroog ba bëgg a doomam nag loolu mooy gut ba nga xam ni toq ba nga xam ni moom moo doon wala ngaan loo ndab la c'était trop loola nag Macky Sall fi la ko fekk ndax loola am na jaar-jaar yu mu ca jaar moom yu mu ca dund am frustration yu ñu ko ca def am tooñ yu ñu ko ca def peuple bi ñu baree bare wëlbatiku ànd caag moom merle ko kon yaakaar naa ne ku mel noonu soo ñëwee ba mbir mi dal la nga nekk ci situation ba nga xam ni ba fa la Ablaye Wade nekkoon am na loo xam ne yow waruloo nangu di ko teg nit ñi nguur du éternel rien n'est éternel waxumalaat laat nguur dara loo xam ne lii luy sax éternellement di dem amul nit ku baax li nga xam ni moo la war da ngay wut aw woy woy ngay wut woo xam ne wii danga ko fiy bàyyi su ëllëgee ñu koy fàttaliku ci yow ci lu baax Nelson Mandela li mu daj ci nguur li mu daj ci ci ci réewam yow dajoo asaka ji Macky sàll asaka ji rek dajuloo ko asaka ji dajoo ko vingt-sept ans lañ ko tëj yow sa coono ci nguur yépp weesuwul xëy na at wala ñaari at te ban ñu jël réew jox la Martin Luther King bakkanam la ca bàyyi Mandela bi nga xamee ne del ñëw na ba ñu jox ko nag donkaa ga dafa dem ba xam ni moom mënatul mu bàyyi am na sax ay jegeñaaleem yoo xam ni ba ñu faloo ndax palam ga ba ñu tàmbalee def lu dul noonu Mandela dafa seppi seen loxo sànni ca xal àll ba yow li nga doxal boobaak léegi kenn xamu ko lu dul séddoo bukki lépp bukki ñaa nga xam ni nag ñoom ñooy say prédécesseur ci ñu sori ak ñu jege waroon nañ laa jàngal leçon yu baree bari bari bari bari yoo xam ni da nga ci sukkandiku ba xam ni am na comportement yoo xam ni ku koy def rek bëggoo bàyyi sa ginnaaw lu rafet lu ñuy fàttaliku sa yoon c'est l'instant pile bi nga xam ni moom nga toll rek moom ngay toppatoo te loolu nag kenn yéenew la ko bu yeboo kon nga jéem a soppi saw doxalin lii nga xam ni mooy xew ci réew mi daal lu la ci neex mën naa soppiku waaye boo namul mu soppiku dana soppiku par force parce que processus bi tàmbali na te jàpp naa ne c'est irréversible pour l'instant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.